jaara ma comme comme yàlla defee aussi xool bu nekk rek ak fi ngay far mm-hmm. te itam ñu ma faralul moom euh, victoire ci côté pouvoir moom dama ñaan yàlla rek yàlla na saxal seen victoire ci côté pouvoir comme man maa far di yéen ñooñu loolu nag ku mu neex mun nga far feneen waaye na rafet rek moo gën dëgg la voilà di ñaan yàlla aussi Ousmane Sonko moomu yàlla gën ko defal weer bu baax a baax bu mu jóge ci kaso bi ak mbooleem détenu politique yi amiin amiin ay ñaan yàlla aussi yàlla def élection deux mille vingt quatre incha allah yàlla na ko yàlla def. amiin amiin. ah aussi soxna Diarra tey ñaawlu rek euh, waa waa Pastef yooyu nga xamante ne dañ leen a kii dañ leen jàppoon. Mm-hmm. nangu seen fiis parrainage yeeg xaw ma mm-hmm. ah, ne rek day gën a xeeblu suñu suñu suñuy policier parce que gis nga soxna Diarra. Mm-hmm. am na bari yoo xamante ñoom ñu koy def waa Pastef. maa li leen di xeeblu la tey gën di yëkkati Pastef parce que gis nga dañoo ne gis nga yàlla bi taal bi yàlla taal ak moo naqaree fay wala boo ko naree fay sa amaana yow mi koy fay sa dañ ciy am problème rek dañ ciy ñaaw rek mm-hmm. ay am problème toujours to ci ñuy naan képp ku bokk Pastef doo dem ak Ousmane Sonko du dem ak man damay am problème ci ñi di ko wax noonu mm-hmm. parce que xam nga lu tax soxna jaaram man li tax man sama dimi bopp man dama jàpp ne Ousmane Sonko ak mooy kiy dem ci élection li tax man ma ma ma jàpp loolu mooy première fois Sonko sénégalais la di doomu sénégalais cent pour cent. dëgg ah, li nga xam maanaam yoon bi nga xamante ne euh, président Macky Sall da ko am Sénégal man ma am ko fa dama yaakaar boobu la Ousmane Sonko am te loolu laa gam mu ñun ñëpp ay carte nationale Sénégal la ñu doon ay sénégalais cent pour cent. Mm-hmm. kon tey lépp lu Macky Sall doon Sénégal ak keneen Ousmane Sonko war na ko mën a doon Sénégal. léegi complice may mbiru yàlla moo def euh, président Macky Sall nekk président de nation kon loolu dañ ko koy nangul mhm. mais nag euh, boo xoolee mbirum Ousmane sonk fu mu commencé ak fu ñu yemagul nii da nga xam ne lii nekk na loo xamante ni yàlla gën a ci loxoom parce que gis nga ñi bu doon seen pexe maanaam yàlla naroon na ko nasaxal seen pexe yàlla naroon na ko sotti kon sotti na bu yegg Mm-hmm. mais imagine booboo léegi ñu ngi ñu ngi yeeg ak Ousmane Sonko di jóg ak moom te dara te pourtant ñoom ñëwee pouvoir bi ci côté bu ne man de ma gis nga rabat d'arrêt bi nga xamante ne ñoo ko def euh, kooku Ousmane Sonko yi man de am yaakaar cent pour cent parce que dama jàpp ne gis nga justice bu bon fu mu ne justice bu baax ngi ci wetam amaana feeñ na wala feeñul xamaguñu mais jàpp naa ne lu bon fu ko fekk rek lu baax ngi ci wetam. kon nañu am yaak nit ñi mhm. bés na ñëw yàlla ma ñu pouvoir bu rëy a rëy yala rëy a rëy a rëy noppi na toujours li may wax rek yàlla noppi na dëgg la képp ku yaakaar procès bii ni procès Pastef bii amal yaqin ne Pastef ak nu mu mënti demee day dem comme ñëpp te ñu ngi ñaan yàlla yàlla ma ñu victoire deux mille vingt quatre incha allah nañu rafetal mhm. ndax àdduna kenn xamul tey yow éleg sa morom nañu rafetal ngir éleg na solo lii daal laa amoon li may wax mhm. di leen ziar bu a baax. jaajëf merci beaucoup Chromatine ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kàddu yi euh, am na solo rafet na 88 628 73 13 08 88 25 24 02 wala ci 77 14 64 93. ñu jël mbokk mu nekkaat ci ligne bi voilà mën ngeen continuer oote ci numéro yi su ko defee di ngeen euh, mën a àddu ci li ñuy waxtaanee bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko. waaleykum salaam wa rahmatullah sama jaara oh, tardé nga de maa lay jaar baax tey moom damaa xaw a sonn lool ci ligne nag mais xale dañ lay xaw a di loolu day am mais nag ñaan nga nangoo sonal dëgg la dëgg la ñu ngi ci jégg voilà mhm. Gilbert Sadbou Seydou Ibrahima mhm. Kromak sama waa ji saa Touba rek ak euh, jigéen ñi ci commentaire bi ñoom rahmatulah ñoom ñëpp ñu ngi leen bu baax leen ziar ak euh, Ibrahima ñu woowee père dégg naa ko tey dinaa ñëw ci moom donc euh, ak suñu waajooju xam nga nu mu tuddati sax ku doon woote te moom ab Karim Wade la ko sa saa nee na Pastef du am candidat voilà quoi mais bon Mm-hmm. loolu moom xam naa ni euh, voilà quoi du ma ciy mm-hmm. sori mm-hmm. voilà donc euh, ñu ngi nuyuwaat ñëpp mooy li nga xam ne mooy euh, rawaa deret bi nga xam ne avocat yi déposé nañ ko maanaam lu toll noonu ci ay avocat boo dee génn tey barabu Sénégal ci nekk ci avocat ñu ci gën a xarañ ñoom ñëpp amaana mën nga leen boole ci biir buñ ci jiituwul tamit yaakaar naa doo lim kenn doo leen ci teg kon yaakaar naa ñoom lépp loo xamante ne ñu ngi koy def rek defuñ ko pour ay affaire fuural kon seen liggéey la bi nga bi nga bi nga euh, jàngee ba am sa ay lijaasa nekk ab journaliste kaneen nekk la kaneen nekk laneen ñu nekk ay ministre ñu nekk ay euh, directeur général ñii dañoo euh, opté nekk ay juriste porté nekk ay avocat donc comme seen liggéey la yaakaar naa ni lépp loo xamante ne dañ koy def naanam nekk fii naan ay dañuy fuural ak yooyu ça veut dire que maanaam da ngay yaa yaa ngi tooñ yaa ngi tooñ euh, barabu Sénégal ak barabu Sénégal dama may avocat yu yu yoo xamante ne wax dëgg yàlla seen ak xarañteef dafa mucc ayib ndax am na tey avocat yoo xamante ne dañu jóge ba Sénégal dem ci yeneen réew di plaider voilà donc comme bu fekkee dañuy nekk seen liggéey di ko di ko exercer ñu leen ko euh, yoon maye yaakaar naa ne xam nañ li ñuy def mais pas di nekk ci ay kuréel ak yooyu bu doon ay kuréel la yaakaar naa ne dinañ ko tànk ci mais pas liggéey boo xamante ne wax dëgg yàlla ay ay ay millions de Sénégalais ñoo am ñoo am yaakaar si ñoom muy ñi nga xam ne dañoo porté seen yaakaar si Ousmane Sonko donc euh, avocat yi ñu ngi leen di topp encore une fois comme toujours mais buñ ne dañuy fuural ak yéen ñoom fekk ànd ñoom ñoom quoi. voilà mhm. euh, ñu euh, boo xam ne wax dëgg yàlla acte nañ ko ba pare mais nee nañu il fallait que ñu am cinq yi nga xam ne ñoom ñoo doon plaider. nekk ci euh, euh, jugement ba cinq la maanaam mënoon na doon quatre mais bu ñu nee dañ naan bu deux yi nee bu deux waaw deux yi ne déet kon du am koo xam ne dina mën a séparer boo dina mën a ne euh, ci digg bi moo tax ñu def ko cinq cinq mhm. yooyu nag bu deux yi nee waaw deux yi ne déet kenn ki ci des day xool bu am waaw lay doon waa ne ci déet bi déet lay doon kon kooku loolu bu fekkee signature am dafa manqué rek kon ça veut dire que atte yi mënatul valable dañ day day day nasax waaye loolu noonu même bu fekkente ne doo juriste defoo droit da mel ni man mais amal xel mu rafet. Mhm. wala nga déglu koo xamante ne dañ ne na maanaam nekkal borom xam-xam wala nga nekk kuy déglu borom xam-xam yi wala nga nekk kuy jëfee xam-xam loolu lañ la wax waaye nag mënoo taxaw fee naan day nangam ak te mënoo ko argumenté quoi. voilà mhm. donc kon ki nga xamante ne moom moom la signature am manqué tant que signature am boobu complété wul kon jugement bi man. ah loolu lañ ko bu baax a baax a baax. am na waxaat mooy euh, Oscar euh, presse bu bëri ñu bind allo oui ñu ngi lay déglu Oscar allo soxna Diarra voilà waaw mhm. waaw waaw dama ni beneen bi may daana la bokkul ci point bi mais euh, il fallait que muy nit ay leeral parce que damaa gis presse bu bëri tey Sénégal di wax naan délégation Pastef dañoo dem euh, euh, rendre visite euh, président Kassim mu recevoir leen donc ñu ne fa di wax ay waxu affaire Niger rek ay Burkina ci yooyu Pastef amul amul priorité wala prérogative boo xamante ne nii dina def wàllum diplomatique te falaguñ ñu donc ñooñu noonu ñu waaw Pastef man mi wax yow nii man maay président de commission de organisation Pastef Mali fii ci diaspora bi kon loolu warta mën a am te yëguma ko kon loolu amul li fa amoon mooy ñoo xamante ne nii dañ doon rendre bu leen di Diop koo xamante ne nii ñoom mouvement boobu noonu ñoom ñoo demoon ñee di leen euh, wan seen soutien ak affaire yooyu loolu moom moo fa amoon. Hmm. par par la suite ñu invité woon fi maître Ngagne Demba Touré donc loolu moo fa am mais Pastef demul di euh, di di jàkkaarloo président bu Mali loolu lu mu ci manti doon amul benn ndaw Pastef boo xamante ne mu ngi fa te demoon na ko kon information boobu wérul tey wérul suba wérul ëllëg. voilà bés buñ ñu faree nag ñu nekk jiitum réewum Sénégal parce que nekk parti bi nga xam ne moom mooy jiite Sénégal boobaa tamit dinañu def ay affaire diplomatique par rapport ak ñeneen ñi mais fi mu toll nekk guñu ay président de la république te Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor comme donc maire bu Ziguinchor am na ay ay ay euh, am na ay kii yoo xamante ne ni collaboration yi mu def ak maire bu Kati bi nekk fii nii donc loolu noonu pour ñoom la mais bu dee parti Pastef na moom demuñu ci euh, Kasim tey demuñu ci Kasim ëllëg donc recevoir ñu ñu ci ñun mhm. yi nga xamante ne nii ñoom ñu ngi si seen yi am ñetti millions mhm. voilà mu mel ni daanaka wax na lim bëggoon ñu ngi koy jaajëfal ci ligne bi ba tey Oscar. réseau damay xaw a décoloré yaakaar naa yaakaar naa c'est bon ah c'est bon mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi lay dégg waa. allo Oscar. waaye allo maa lay dégg ma ni tane na. ñu ngi lay dégg waa mën nga yeggali fi nga nekkoon. voilà dama ni booy yi nga xamante ne dañoo nekkoon seen seize bi après gars yi fekk leen fa nangu seen ay fiches par exemple bu fekkee seen trois millions yi am daf leen doy lañ wax ñu ñu may leen si ñu am boo léegi dañoo bëgg ñun ñu wax lan ñaata la am dañ leen waxoon ñu ne vingt quatre heures am nañ ci un million bay mais ba léegi dégg bu leen ñu ne am nañu temps vingt quatre heures bañ ci ci un million yi bu leen fàttali li euh, nga xam ne collecte nañ ko ci diaspora bi demagul woon te yooyu noonu ba léegi demagul te jàpp naa ni biir semaine bii dinañ ci li ci diaspora bi yëpp dinañ ko takkale boole ko yóbbu ko donc loolu noonu bokkagu ci ñoom fekk ay ah, instant bi nag war nañoo xam Bassirou Diomaye ay ñaata la am nag ndax dëkk bi xaw a yëngu tuuti comme <laughs> 3 millions yëngaloon na dëkk bi donc Bassirou moom instant bi war nañoo xam ñaata la am bu ko defee dëkk bi yënguwaat waaw xam nga xam nga ñun gis nga Amadou Ba keroog publié na ko nee na ñun ay guerre civile buñ duggagul. mais ñun bés bu ñuy collecté suñuy ñu am naa ko waxee di ngeen ko ñoom si terrain la valise yu fëgg jaay mu demee dinañ ne leen temps la ñu am muy cinq millions quatre millions lu mu ci wante am yaakaar naa buñ ko waxee dañ ko mën a argumenté parce que chaque jour saa bu nekkee yéen day daw ci terrain bi. am na solo xam naa ne loolu daal ñoom seen guerre civile mhm. kon ñoom nañu xoolaat jaaxaan di sa boom sa bopp ngay ñu ko tooyee balaa ngay tooyaat keneen loolu noonu ñoom la rek ñun taluñu ko quoi ñun ay wax ak ay jëf la boole te yaakaar naa ni bésu fay bu buñ si yeggee buñ fay buñ fay wax bàyyi jëf voilà donc nañ bàyyi ba yegg ci rek bu ñu indee suñu chiffre di xam ne lii lu légal la te mën nañ koo justifier donc foofu laa doon daal le quoi. jërëjëf Constantia merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Ramatoulaye Sané nee na ma ay jaarami ah dëgg laa wax di instant bi ma wax dëgg faa yàkkamti naa xam de Basiru ñaata la am xam naa loolu rek a mën a yëngalaat dëkk bi jamono ji ñu toll nii bu ko defee nag ñu waat ñu indiwaat ko fii ne leen Basiru temps la am. <laughs> xañ na peut-être semaine bii ñu jëm dina génn voilà euh, euh, ma daal di dem nag añ yi ñu ngi may woo añ voilà ma jaajëfal leen bu baax a baax. jaajëfal Moustapha Serigne Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax tey dégguma la Fatou Thiam ay ah, Ramatoulaye